وأرواحنا في جمالك حائرة ساحرتنا بلطفك قبل الظهور إلى عالم الشهود وقومتنا بروح اسمك الودود في مراتب الوجود لك الحمد عدد ما كان وما يكون إنما أمرك إذا أردت شأن أن تقول له كن فيكون يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر وتعطيه بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موكي yi maa ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk ci turam ak jëmmam xam naa incha allah ñu commencé waale en bon de temps en temps revenir xool ba xam amul ñu nekk ci kii bi ci salle d'attente bi <clears throat> je vais partager euh, dañuy dellu fi ñu yemoon ci semaine ba bële ci ginnaaw yaakaar naa ñu ngi yemoon ci yoon yi nga xamante ne nii ci la ñuy mën a jotee xadis euh, ak euh, Isnat, wala ittisalu sanad yon yi nga xamantene ci lañ ko mëna amé moy turuqut tahammuli taxamuli wa siyaqul ada manam yon yi nga xamantene ci lañuy jëlé hadith ak yon yi nga xamantene ci lañ koy joxé alors jangon nañu ba ya kana fii la ñu donc tay al ijaza lañ wara jang al ijaza yu ci bari nak amna na ñoo ci ñi def cours de renforcement yi gisoon nañ ko ba pare donc danaka une petite révision lay doon pour ñom بيتي نيك موي الاجازه وهي انواع مانام اجازه اي اي اي كاتيجوري لا اي اي حاجه لا ارفعها بيتي غنا كاوي ان يجيز لمعين في معين مانام nga ñu ijazal ku ñu xam une personne bien euh, bien bien ci c'est quelque chose de bien dénommé aussi donc ci li ñu jàngoon gis nañu lan définition wu ak donc jarul ñu ci ñëwaat waaye daal ci gàttal bu ñu waxee bi ci euh, quelque chose de quelqu'un de défini l'ijaazaal nit ci quelque chose de défini wa an an al للطالب أن يروي عنه حديثا معينا أو كتابا معينا كأن يقول له أجزت لك أو أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري maanaam par exemple sëriñ bi riwaaya digal taalibe bi ci mu riwaaya ci moom quelque chose de précis mu mel ni nga ñëw ne la ajastuka wala ajastu laka ñaari siixa ya baax na an tarwiya an nii saxiix al buxaari jox naa la ndigal nga riwaaya jëlee ci man saxiixul buxaari jox naa la ndigal nga riwaaya jëlee ci man saxiixul buxaari loolu riwaaya la ci quelque chose de précis donc joxuma la ndigal ci mboolem téere xadis yi mais ci saxiixul buxaari laa la jox ndigal wala sax beneen yoon ba léegi nga ñëw ne ko kitaabal imaani min saxiixi muslim par exemple nga ñëw ne ko jox naa la ndigal nga riwaayaa ci man euh, chapitre bi tudd kitaabul imaan ci saxiixu muslim kon ci loo ciy déggee mooy joxuñ ko ndigal ci saxiixu muslim bi yépp waaye une partie ci saxiixul muslim ci saxiixu muslim bi dañ ko jox ndigal <coughs> une partie d'accord alors bu fekkee ci tasawuf la yu mel noonu am na da gis léeg-léeg sëriñ bi ñu ne la jox nañ taalibe bi ndigal ijaaza mutlaq ijaaza muqayyad ijaaza nangam ju mel noonu donc ci wàllu xam-xamu xadis tamit façon yooyu daf ci am nga jox taalibe bi ndigal mu riwaaye ci yow lépp loo am ba pare tamit jëriñ ci nit ñi wala nga jox ko ndigal mu riwaaye ci moom mu riwaaye ci yow lenn ci li nga xamante ne am nga ko euh, walis leneen di donc bu fekkee ne nag dañ koo jox ndigal ci saxiixul Buxaari bi lépp Boba mën na jàngale saxiixul buxaari ci ndigalu sëriñ boobu même bu fekkee déggul ko même bu ko ci exemple euh, <coughs> Ibrahim Saleh Bimi muy jàng ci saxiixul buxaari ci du ne de la from cover to cover am benn pàcc bu mu jàng jox ko ndigal ci li ci donc li mu li après daf koy vous comprenez donc tey jii yow soo ñëwee man ma jàngal la benn téere en partie ne la jox naa la ci ndigal ci li ci des mën nga dem góorgóorlu wala nga dem jàngee ko feneen mais boo koy riwaayee nga riwaayee ko ci sama ndigal xëy na li waral jàngaluma la ko lépp ay sabab yu bëri la te wuute comprenez euh, donc bu boobaa boroom xam-xamu xadis yi dëppoo nañ ci ne façon ijaaza yi lu ci am rek. mën nga riwaaye xadis bi ci ndigalu sëriñ boobu lii la ñuy wax ijaaza muayyan li muayyanin maanaam ijaaza nit ku précis ci lu précis voilà quelque chose de bien précis nga ñëw ma ne la lijaazaal naa la ci kutubu sitta yi nga xamante ne moom la ahlu sunna yi di sukkandikoo foofu laa ci yem kon bu ma la waxee kutubu sitta du droit dem di riwaaya musnad ahmad ibn hanbal ci sama ndigal joxuma la ci ndigal kutubu sita la la wax te kutubu sita on les connaît Bukhari Muslim Tirmizi nasai Abu daud ibn majah naka noonu soo ñëwee ma la jox la ijaaza ci saxiixay moy muy Bukhari ak Muslim amoo ndigal dem di riwaya sunan nasai ci sama ndigal joxuma la ci ndigal c'est pourquoi parfois bo tahaddus bi ni'matillah manan مولانا الشيخ ابراهيم صالح Saalih جوخنا ما na سي تيري حديث ييغا خامتاني ني موم مو ام amna yenn téere yoo xamante ne sam ijaazaam ci moom préciser wu ko waaye itlaaq la donc ijaaza muayyan li muayyan dafa am loolu mooy première daraja bi te mooy mooy bi ci gën a kawe wa hadhihi al ijazatu maa kawniha aqwa anwaai al ijazati mukhtalafun fi sihhatiha ikhtilafan qawiyan inda al qudama'i wa in kana al amalu istaqarra ala i'tibari ala i'tibariha inda al mutaaxirin maanaam malgré que moom mooy euh, façon bi gën a dëgër ci xeetu lijaasa yi sauf que ñi jiitu woon ci borom xam-xam yi wuute nañ ci ndax wér na wala wérul waaye nag ci ñi mujj ñi d'accord nañ ci ne mën nañ koo jëfee et donc présentement amul wuute presque ci ne lijaasa façon bu mel noonu wér na ci taalibe bi <coughs> ci taalibe bi wala ci élève bi mën na jëfee euh, façon bu mel noonu. donc tey soo ñëwee ci sëriñ mu ne la jox naa la ndigal ci nga joxe tarixa tijaan exemple jox naa la ndigal ci nga joxe tarixa tijaan ci loolu la la tënk joxu la ndigal ci leneen donc yow tu dois te limiter seulement ci joxe tarixa tijaan naka noonu ijaaza boobu mën na nekk mushaafaha mën na nekk kitaaba ainsi de suite maanaam bu ñu waxee mushaafaha mooy mu wax la ko de bouche à l'oreille <coughs> euh, mën na nekk tamit lu mu bind jox la ko mais benn bu ci nekk wér na bu fekkee wér li nga wax dëgg la que ne ci sëriñ bi la jógee pas mu nekk lu ñu falsifié avec jamono ji nag lu lu xaw a critique la ndax nit ki mën naa dem sàcc tampon wu sëriñ bi ak signature am vu que sëriñ yu bari léegi wala ñii ñuy tuddee sëriñ yu bari dañuy def copie ay ijaaza yu bëree bëri <coughs> photocopier ko bàyyi benn espace bu ñuy bind tur bu ko defee kuñ dajee wala bon pas sëriñ boo xamul sax je retire muqaddam ñi ay muqaddam dañuy def copie yu bari bàyyi benn espace fu ñuy bindee tur bu ko defee bu ñu dajeeg benn euh, diw sàngam mu def leen mu defal leen lu leen neex yu ñu bind turam foofu ne ko lijaasal nañ la sans pour autant ñu xam kooku tolluwaayam fan la ak loolu moom c'est une catastrophe c'est une catastrophe qui guette le soufisme et get aussi en partie di leen que Sénégal fii nit ñi fonkatuñ ko mais ci wàllu xam-xamu euh, xam-xamu xadis ak xam-xamu téere yi bon malheureusement lu néew ngay gis fii ci Sénégal nit ku ne la am naa ijaasa ci wàllu xadis wala nangam surtout jamono ji talatuñ ko ñoom li ñu jàpp ne mooy ijaasa sax mooy pour nga kaalawu toog am ay taalibe alors que alors que euh, téere xam-xam yi sëriñ si ak euh, mag ñi dañ ci daan am ay ijaasa nga dégg mu ne la kii dafa am ijaasa ci alfiyatu ibnu malik pour jàngale ko kii dafa am ijaasa ci euh, nu mu tuddati risaala bu ibnu abi zeydin pour jàngale ko dañ ci daan am ijaasa waaye léegi nit ñi bu ñu bu joxee ijaaza rek on pense à quelqu'un bu war a sol dara toog taalibe yi war ko di zikar bu bu sumee daal ñu téyel ko ko c'est du n'importe quoi ce qui amène les dérives qu'on voit là partout alors ngay gis benn waay boo xamante ne xamoo fu mu toll ci yàlla xamoo sëyrum fu mu toll xamoo xam yàlla am fu mu toll xamoo góorgóorlam fu mu toll ak njubam fu mu toll rek nga bindal nga bind turam ci benn bout de papier jox ko ko ne ko moom mooy sa ijaaza alors بوم mooy بريمير بي واما ال... واما باقي انواع الاجازه مانام ييغا خامتيني خيتو اجازه يي ديس موي بار اكزامبل 1 ان يجيز لمعين في غير معين مانام nga lijazal quelqu'un de bien connu sur quelque chose de pas défini qui n'est pas défini maanaam ka an yaqula ajaztu laka jamia masmu'ati manam nga ñëw ma ne la lijaasal naa la ci mbolem lu ma am ci ay këyit wala lu ma am ci ay téere wala lu ma jàng wala lu ma dégg xam nga tey jii soo ñëwee ma ne la lijaasaal naa la ci mbooleem samay këyit yi sama carnage yeeg sama nangam mooy ne bépp buuda de papier boo trouvé mu moom ko rek yow am nga ci ndigal donc c'est pas défini c'est pas précisé dama la kaa jox noonu de façon globale loolu am na. contrairement ak bi jiitu woon nga xam ne dama laa préciser ne la lijaasal naa la ci téere sàngam wala ci kànnaaj sàngam wala ci turu yàlla sàngam wala ci xam-xam sàngam wala ci xadis sàngam mais bii dama ne la riwaaya lijaasal naa la ci lépp lu ma kii bon malheureusement nag ce qui est très dommage façon bu mel nii moo gën a bëri ci suñu jamono ji façon bu mel nii moo gën a bëri et façon bu njëkk ba moom moo gën a wér alors ñaareel bi loolu mooy première bi ñaareel bi wala deuxième bon troisième an yu jiisa li gayri muayanin bi wasfil umum maanaam ñu ijaazaal nit wala quelqu'un qui n'est pas défini de façon globale ci anam anam mu dajale par exemple nga ñëw ne nit ki <clears throat> ajaztu lil muslimina aw ajaztu li kulli ahadin aw ajaztu li man adraka zamani par exemple nga ñëw bind ci sa benn téere ne lijaasaal naa ci mbooleem jullit ñi xam nga loolu préciser woo mbooleem jullit ñi rek nga wax kon képp kuy jullit rek dugg na ci moo xam mu tudd Samba moo xam mu tudd faat moo xam mu tudd Ousmane mu jub wala mu dëng danga généraliser ajaztu li kulli muslimin wala par exemple nga ne lii jox naa leen ci ndigal yéen ñëpp bon parfois même ci même ci yoonu yoonu yoonu yoonu sufiyanke da nga koy faral di gis nga gis sëriñ bu ne yeesalal naa leen seen tarixa yéen ñu toog fii ñëpp façon bu mel noonu maanaam yenn jotaay yi su amee nga xam ne sëriñ bi amul jotu daje kenn ku nekk de façon individuelle mu tàllal rek ne tàllal leen bu ngeen pare yeesalal naa leen seen ndigal yéen ñëpp kon képp ku teew ci jotaay boobu rek dañuy considérer ne sa ndigal yeeslu na bon excusez le parallèle euh, parallélisme du may def mais juste pour jegeel mbir yi parce que souvent c'est ce qu'on ce qu'on comprend beaucoup plus fii ci Sénégal ñetteel bi wala ñeenteel bi moy nga euh al ijazatu lil majhul aw bil majhul bon euh leen ma duma ko définir ci Facebook suñu suñu coupé live Facebook bi ngeen fàttali ma ko incha allah ma définir leen ko waaye li ma leen di wax rek pour pour wan leen ne jàngee ci Google ak jàngee ci dégg naa foog naa bokkut ak jàngee ci ku jàng ku jàng ñu jàngal ko mu am sëriñ jël leen jël leen pa kii bi phrase bi li ma li ma encercler nii jël leen ko ngeen dem xool kuy wootee boppam borom xam-xamu hadis di jàngale hadis ci groupe whatsapp yi di yoo kii ngeen laaj ko lan mooy ijaazatu lil majhul aw ijaaza bil majhul foofu la ci yem bu ñu live Facebook bi ngir yàlla ngeen fàttali ma ko quelqu'un ci yéen na ma ko fàttali incha allah ma ma ma expliqué je vais pas l'expliquer sur Facebook ñu bëgg ñu expliquer ko ci Facebook dañuy fay ñi nga xamante ne dañoo doyloo jàngee ci Google copier lii ma encercler en bleu nii ngeen dem laaj leen ko lan mooy ijaazatu lil majhul wala bil majhul ci xam xam xadis <coughs> solo ko tontee nga ñëw wax na ko alors donc li yep ci ci la bokk ki euh, petit paragraphe bi la ñeenteel bi moy al ijazatu wala 5e bi moy al ijazatu lil maadum al ijazatu lil maadum mon tamit xeetu ijaza la baal leen ma suñu coupé ngeen fàttali ma ko ñu continuer ko inshallah parce que wa Facebook il faut souvent ñu len defal censure sinon rek dafa yomb bu ëpp toog sa néeg di nan di nan sa ataaya ñu lay ma su galas wax dëgg donc al ijazatu lil maadum mon tamit suñu coupé ngeen fàttali ma ko <clears throat> bi ci topp point bi ci topp nga xam ne moom tamit mën nañ ci amee continuité de la chaîne de transmission mooy almunawala almunawala wa suratuha an yadfaa alcheikhu asluhu aw ma qaama maqaamahu liltaalibi aw yuxdira altaalibu al asla lilcheikhi wa yaqula lahu fi suratayni hadihi riwayati an fulan farwihi anni jàngoon nañ munawala ci suñu cours de renforcement yi mais pour définir ko pour définir ko Euh, Seydi Mame Diop il faut ñuy censurer waa Facebook yi tuuti bu ngeen bëggee jàng da ngeen di ñëw fay alors xam-xam bi xam-xam bu cher la man dama cee sonn bu ma koy jàng kon su ngeen amee ñu leen ci may ay vingt minutes rek sant leen wala ngeen ñëw fay ñu kiyal leen euh, munaa wala jàngoon nañ ko léegi mooy par exemple sëriñ bi jël mbir jox ko taalibe par exemple jël téere jox la ko ne lii mooy téere bi ma riwaayaa ci diw riwaayee ko ci moom riwaayee ko jëlee ci man yaakaar naa expliqué woon ko wala nga ne ko lii mooy xadis bi ma riwaayaa ci diw riwaayee ko jëlee ci man taalibe bi recopier am na beneen anam nag mooy par exemple taalibe bi ñëw indi indi dara gaaral ko sëriñ bi sëriñ bi xool ko approuvé ko bon ci suñu jamono ji da nga koy gis lu bëri surtout taalibe Dakar yi da ngay gis taalibe bu am benn kannacham wala ay ay kayfiyaatam sëriñ ñëw mu yóbbul ko ko sëriñ bi xool ne ko waaw lii xam naa ko lii xam naa ko jox ko ci ndigal ko ci xeetu mu naa wala bu yàggul rek Cheikh Mahi toog naa fa benn jour bi nekk Sacré-Cœur benn mbokk bu ñëw indaale ay kayit yu bëri xam naa ay kannacham ak ay kayfiyaatu ñëw pour wan ko sëriñ bi sëriñ bi xool ko bi lii jox naa la ci ndigal lii jox naa la ci ndigal ne ko lii xaw ma ko lii xaw ma ko voilà Oustaz Barham Diop dégg na mu netal lu mel non ci bay bés jël na yenn kannaa ci papaam yi bi mi génne àdduna yobul ko bay bay yeesalal ko ndigal ci yenn ay yenn ay mubarak donc loolu tamit xetu mu naawala la moy an yuxdira taalibu al asl li cheikh mu gaaral ko ci sanu mbir mi serign bi confirmer ne xam na ko wala riwaya nako mom tamit wala am nako ci yoon sàngam ak sàngam xet la ci xet yi ñi jele hadith te leg leg Euh, importance li ma leen di wax nii mooy xadis bu ñu jëlee ci munaawala ak xadis bu ñu jëlee ci ijaaza ak xadis bu ñu jëlee ci yeneen xeet yi déjà vous comprenez vous comprenez la différence yéen ñiy jàng waa Facebook ñi waxuma ak ñoom yéen ñiy jàng ci kii bi laa wax yéen xam ngeen lan mooy différence bi xam ngeen ne seen degré yi dafa wuute ngay dégg benn waay toog yonent bi nee na yonent bi nee na ban xeetu yonent bi nee na la. ndax xadis bi sëriñ bi ko riwaayé buxaari mi ko bind wala muslim bi ko bind ndax daf koo jëlee ci munaa wala ndax daf koo jëlee ci mukaataba ndax daf koo jëlee ci ijaaza ndax daf koo jëlee ci yeneen xeetu jëlin yi allahu alam ngay gis xadis ci google rek ñëw di tari benn benn cheikh baay loolu lay def te loolu mooy créer problème fi mu toll nii ngeen gis nit ñoo xamante ne ni da ngay dégg chaque jour ñu naan la yonentu bi nee na di indi problème bu ñu bàyyee woon kenn ku nekk fànnam coow li du bëri léegi ñëpp ay kat lañ ngay gis waaju xëy ne la fatalik bis bi duggal hadith par jour xamewul ban xetu hadith la xamewul hadith bi ban yoon lañ ko jëlé xamewul rekay bi ñu jël ci ban anam lañ ko recueillir te xam ngeen ne degré de rekay yi bokul c'est comme dans l'administration par exemple xam nga les écritures administratives seen degré yi bokkul bi ci gëna kawe moy décret présidentiel mais après décret présidentiel dafa am Euh, arrêté ministériel am circulaire am yu mel noonu benn bu nekk écriture administrative la mais seen degré yi bokkul léegi boo ne xadis xadis la on est d'accord mais ban xeetu xadis la ci ban anam lañ ko recueillir ban grade la am te bu ñu weesoo fii vous allez voir te waxoon naa leen ko ci introduction ya xadisu dëkk ak dëkk dafay ëppante doole nga dégg ñu ne lii xadisu waa waa Xijaaz la lii xadisu dafa am nuñ leen di catégoriser am nuñ leen di apprécier hadith wa Basra wala wa waa Iraq moy Kuufa ak Basra hadith bon généralement iraq kay la ñuy wax xadiisu waa Cham xadiisu waa euh, hijaz moy Medina ak Makka hadith wa Ifriqiya sax dafa am ñu leen di apprécier c'est pas des études qu'on fait du jour au lendemain sur Google wala sur YouTube pour comprendre ça c'est pas ça et Moussa Moussa peut confirmer li may wax ni ci dara parce que c'est euh, un chercheur.

ne diw wax na ma nangam wala dégg naa ñu ne diw nee na nangam wala toog naa ci diw dégg muy wax nangam parce que dafa am pesanteur et souvent a'uzu billahi min kalimati ana ngay dégg ma koy xam naa ñi may déglu ak ñi ma nar déglu ji parce que ñi la ciy déglu am na ci ñu xam yooyu les mots que tu utilises ça pèse sur balance et bu nit ki xamul nag day leen gis benn hadith ci sa Sahihul Bukhari wala ci Riyadou Salih ñëw ne la yonent bi wax na surtout tout loolu rek la ci boko ne hadith bi wérul munela albani werul nako c'est tout albani defarkati montre la woon xeyna yow mimi wax ne albani werul na hadith bi yow ya ko gëna xam hadith bi mu xadisu mukaataba la wala munaawala la wala ijaaza la wala arf la wala sama la wala imla la wala yow yow sew-sew yooyu yep xam nga ko ci hadith bi c'est pourquoi jour bi ñu lakké gor jigen gor jigen bo ko ñu wax ne góor jigen la kaw lakk quand j'ai écrit man ma ne yi ngeen ci nak indi xam naa ko quelqu'un m'avait qui dit ma voilà da nga xam nga xam nga ñoom lu ñu comprendre wul ci mbir mi dem fabriquer ay hadith def l'islam mu nekk diine terroriste ak diine barbarie même bu fekkee ci saxiixu muslim lañ ko dugal wala saxiixu buxaari ngeen jégal ma ci c'est une parenthèse alors bi ci topp mooy almukaataba moom tamit xeet la ci xeet yi ñuy jëlee euh, on fait une petite révision hein, li yëpp jàngoon nañ ko almukatabatu wa huwa an yaktuba alcheikhu ila taalibi شيئا من حديثه بخط بخطه وهي نوعان maanaam mooy sëriñ bi bindal taalibeem bi wala élève am dara ci ay xadisam ci loxoom waaye bii tamit dafa am ñaari catégorie dafa am maqrunatan bil ijaza ak mujarrada jàngoon nañ ko mooy mukaataba bu ànd ak ijaza ak mukaataba bu ànd ak ijaza moom tamit xeet la ci xeet yi ñuy mën a recueillir xadis amna hadith yo on les a recueillis par mukataba on les a pas recueillis par sama on les a pas recueillis par mou ijaza on les a pas recueillis par munawala mais par mukataba dañu am sen pesanteur dañu am sen catégorie bu bu bokkut une catégorie <clears throat> après vous di ngeen am latitude buma couper live Facebook ngeen poser une question de précision pour qu'on précise tout ce qu'on est en train de surfer là alors bi ci topp al ilam وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب ولا الكتاب الفلاني عن فلان مويس يجلي سرين بني man téere sàngam ci sàngam laa ko déggee wala ci diw sàngam laa ko jàngee léegi nag yow soo ci bëggee ndigal taalibe bu boobaa mën nga koo laaj sëriñ bi wala moom sëriñ bi mu jox leen ci ndigal exemple Mawlana Cherif Ibrahim Saleh ne la saxiixul Buxaari ba ci buntu sàngam ci Baay Ñas laa ko jàngee jox naa leen ci ndigal ni ma ci bàyyi joxee ndigal donc boobaa da nga riwaaye saxiixul buxaari ci par ilam ci moom bokkut ak mu ñëw ne la jox naa la ndigal ci saxiixul buxaari ci buntu sàngam ba buntu sàngam parce que phrase ba la jiitu woon nekku fa donc cette précision bu sew boobu noonu dafay wuutale ñaari daraja yi comme yàlla ak yàlla bii boobaa dafay nekk bi bii dafay nekk ijaza <clears throat> bi ci topp mooy al كان أوهم إن لن يحدث بالوصية أن يوصي المحدث عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله موي سيرين بي دين كاني كوم ني واخي نون لا شيخ عمر فوتي جوخي وال لجاز سيدي حاج مالك دانيو واخني بيل وصيه لا فاصون يو مل نون امنا روايه بيل وصيه وقد قال قوم من الائمه المتقدمين لا يجوز ان يروي تلك الاصول تلك الأصول عنه بمجرد بمجرد الوصية وأبى ذلك الجمهور am na ñoo xamante ne dañ ne daganu ñu riwaaya xadis bil wasiya waaye am nañu jàpp ne moom mënees mënees nañoo riwaaya xadis bil wasiya te loolu mooy li gën a wér sauf que ak suñ jamono ji parce que toujours toujours aussi il faut nga koy peser ak jamono ji ñu toll ak suñ jamono ji il faut ñu am précision ak certitude que ne mbir mi ci waa ji la jógee du lu ñu falsifier on peut falsifier des documents <coughs> alwijaada jàngoon nañ ko moom tamit waxu an yajidu bi xattin <coughs> yaarifu kaatibuhu uh, kaatibahu yaarifu kaatibahu fa yaqulu wajadtu bi xatti bi xatti fulaanin jàngoon nañ lan mooy xadis bil wijaada alors bu ñu weesoo foofu on peut c'était <coughs> ce chapitre là ñu ñëw ci chapitre bu ama am solo ci buntu xam-xamu xadis mooy lu ñu tuddee al muxtalif wal muxtalif المؤتلف والمختلف <clears throat> بنتو أما أم سرولا concentrez vous bien parce que من ديستروك mais concentrez vous bien man بوكو نتي بنتو يما جنون سونال بما يجان كاليس صراحة تبلي جنين دفعي سونال نيو بري بري et je vais vous allez comprendre pourquoi définition بنيو خيلان موي المؤتلف والمختلف في الحديث بوكو نتي بنتو يجن جفة maîtriser تخم خم حديث je vous le dis et ça je vous le répète encore je vous le répète encore bokk na ci buntu yi gëna jëfé maîtriser al mu'talif wal mukhtalif huwa ma yattafiqu min al asmaai khattan wa yakhtalifu nutqan سواء كان مرجع الاختلاف نقطة أو الشكل النقطة أو الشكل معنام موي لو خمانتني ني بو نيوخي المؤتلف والمختلف موي لو خمانتني ني dafay dafay dafay dëppoo ci ay tur ci buñ koy bind waaye buñ koy prononcé mu wuute nuñ koy prononcé wala vice versa naka noonu tamit moo xam wuute boobu li ko indi benn tomb la wala masque la vous savez que arabe dafa complexe trop benn masque rek dafay changer maanaawu baat complètement par exemple tey jii soo ñëwee ne aalimu bi fat bi kasri laami aalimu ça veut dire borom xam-xam boo waxee aalamu bi fatxi laami ça veut dire le monde boo waxee alamu alamu ça veut dire le drapeau boo waxee ilmu ça veut dire connaissance xam-xam donc alam ilm masque bi moo wute changé na baat bi comme yàlla ak yàlla alors lii mooy définition al mu'talif wal muxtalif loo xamante ne nii ci bind mi ci ay tur turu ñuy riwaay xadis dafay dëppoo nuñ koy bindee waaye dafay wuute nuñ koy prononcé ou vice versa moo xam nag wuute boobu li ko indi tomb la wala masque la lan mooy njëriñam ahamiyatuhu huwa bokk na ci njëriñu xam muxtalif wal muxtalif huwa fannun jalilun fànn la bu bu bu ama ama am solo ci xam-xamu xadis te borom xam-xam yu bëri seen lacune def ciy feeñ ci anam boobu léeg-léeg may déglu euh, ci waxtaankat yi fii nga dégg waaye joo xamante ni saa yi da nga koy dégg li nga xamee ci niveau koy dégg li nga xamee ci dafa bëri ay catégorie bëri ay sous catégorie bëri ay chapitre bëri ay sous chapitre et koo ci dégg mu am ci lacune mooy ne maîtriser maîtriser bi maîtriser hadis des na gis nga ilmul illa xam-xamu illa dañuy wax ne moom mooy xam-xam bi gën a jafe c'est vrai en partie xam-xam bu jafe la mais xam-xamu muxtalif wal muxtalif de façon générale mooy xam-xam boo xamante ne lu nit maîtriser maîtriser xadis bu ko xamul de façon précise xam xadisam des na dafay làmbatu ali ibnul madini wax na ne achaddu tasxiif yi maa yaqacu fi l asmaai bokk na ci tasxiif yi gën a bëri jàngoon nañ lan mooy tasxiif ak xadis musaxaf bokk na ci tasxiif yi gën a bëri luy am ci turu ruwaat yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy riwaaya alors anwaauhu wa amsilatuhu ay misaalam ak ay xaajam notez bien première bi première catégorie bi mooy mu talifu alxat muxtalifu shakl maanaam catégorie boo xamante ne ñoom ñoo niroo niñ koy bindee ba pare wuute nuñ koy maska bu ñu waxee masque mooy caractère yi nekk ci kaw bind mi exemple ñu ne la siim laam alif miim bii ñu maasee ko salaam bii ñu maasee ko salaam boo déggee ñu ne la Abdullah ibnu salaam xam nga doo dégg du ñuy wax abdullah ibnu salaam doo dégg ku ko wax kanaa ku xamul dara abdullah ibnu salaam la ñuy wax donc diggante salaam ak salaam c'est comme yàlla ak yàlli ça c'est un al awalu mooy bu njëkk bi ñu ne la bi fathil muhmalati bu ñu waxee al muhmala mooy siin gu siin gu wow gi wa taxfiifi laami buñ waxé waxee lam moy masque bu àndut ak shadda li moy shadda en arab moy ki bi ñuy def ni bon ñu jégg ma dama xaw ñaaw bind nak mais li moy, shadda en arab mo nek ni affaire bi donc mom lu muy jëriñ moy da fay gëna dëgeural prononciation bi salam salam wala nga ne salam donc bii da ngaa prononciation bi moom la ñuy wax tashdid bu fekkee amu fa moom la ñuy wax donc tashdid mooy opposé wu taxfiif léegi ñu ak Salam comme nga aminatu ak aminatu aminatu aminatu am aminatu aminatu aminatu bii da

bi tashdidil laam kon li ngay def mooy danga koy transformer mu nekk salaam bu ma ne la bindal ma salaam bi taxfiifil laam da nga koy transformer mu nekk salaam léegi gis ngeen première catégorie bi muxtaliful xat muxtalifu shakl bi nga xamante ne ñoo niroo nu leen di bindee wuute nu ñu leen di maasee léegi supposons jamono ju njëkk ja nga xam ne bind arab yi wala bind alxuraan bi amul woon masque ça a été difficile. nit ki comprendre lan la ñuy bind bu fekkee nekkul ko xóot ci xam-xamu arab naka noonu tamit ça a été très facile nit ki juum moo tax ngeen gis léeg-léeg riwaay mën a wuute ci xadis yi ça remonte à ça wala bokk na ci li mën a expliquer tey jii su ma ñëwee ne la bind bind lii bindaat nii comment tu vas léegi il faut que soit ma maas ko soit ma dicté la ko.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 bu ma ko maasul wala prononcé wu ma ko ngeen dégg ko ku nekk mën na koo prononcé nu mu ko neexee léegi nag su ma commencé nii ñëw salaam bii ma ne la salaam ça se comprend facilement donc gis ngeen ne ñoo niroo nuñ leen bindee ñoo wuute nuñ leen di maasee moom la ñuy wax muxtaliful muxtaliful xat muxtaliful ism muxtaliful shakl mooy première catégorie bi misaaluhu misaalam nga ne salm wala salam maanaam dangaa def siin ak laam ak miim bii laam bi fal awalu bi fatxi siini wa sukuuni laami wa saani bi fatxi siini wal laami bu njëkk bi dangaa fataa siin gi mooy saa nga sukuun laam gi mooy salm bu ñaareel bi dangaa fataa laam gi ak siin gi mooy salam salam wala nga ne par exemple ubaydatu ak abidatu bu ñëkk bi fal awwalu bi damil ayni bu ñëkk bi da nga dam ayna bi ni mu jox la ubayda bu ñaareel da nga fata ayna bi mu jox la abida parce que masque bu ñëkk bi bu changer da fay mëna am effet mëna am effet la wax ci masque bi ci top c'est pas forcé que mu nekk tout le temps mais gis ngeen fi bi masque bu ñëkk bi changer mu nekk u dafa def baa bi mu nekk baa maftuha fi bi masque bi changé nek a dafa affecté dafa affecté ba bi mu nek kasra nga nek au nga ne abadatu wala abaydatu nga ne abidatu fii nga ne ubaydatu donc buñ ko bindon te maasuñu ko ñom ñaar ñep ñoo bokku nu ñu leen di bindé gis nga ñom ñaar ñep ñoo bokku ñu leen di bindé léegi qu'est-ce qui les différencie mooy masque bi ñu leen masque, bi ubayda la abidala. abida la léeg-léeg nag bu fekkee kiy bind xam na li muy def bu baax mën naa ñëw rek maasal la benn ci xaraf yi maasal la baat bu njëkk bi wala mu maasal la bu mujj bi tu sais kii di bind nii xam na li muy def c'est pas que mu maas bi yépp jii su ma ñëwoon bind euh, bind lii nii li ma bind nii rek def daal di def benn masque nii ñi ñi xam ñi ji danañ xam ne ki bind nii xam na li muy def donc ñoom suñ ñëwee ni ñu koy liiree mooy ubaydatu naka noonu tamit su ma ñëwoon bind ko nii ba pare maas ko nii ñi fekk ji dañuy ñëw liire ko à abidatu non seulement man mii ko bind xam naa li may def mais moom mii li tamit xam na li muy def d' accord léeg-léeg nga gis ñu maasal la ñaari baat léeg-léeg nga gis ñu maas benn baat kese rarement ci arab ngay gis surtout bind yu ñu maasul ñu maasal la baat bi yépp rarement loolu vraiment pour ñu ferul ijji la exemple soo xoolee fii exemple fii nii. xam nga mim bii nii maasuñu ko lam bi maasuñu ko lan ak lan lañ fi maas mim bi mim bu njëkk bi lañ maas ak haa bi ak taa taaton bi pourquoi maasuñu mim bii nii ak lam bi c'est parce que ki koy lire on suppose que xam na li muy def xam na ni mu ko war a lire bu ñu ko maasalee bu njëkk bi bu mujj bi donc bu ñu la maasalee bu njëkk bi defal la ko mu au lieu de ma tu sais que fii dafa war a fata mu nekk muhmala loolu moo tax fer it ji baax loolu loolu la sénégalais di wax fekk ji alors euh, loolu mooy exemple yi ñu ci mën a am bëri na mais c'est juste quelques exemples parmi tant d'autres ñu ne la ubaydatu wala abidatu donc gis nga ne bu njëkk bi da nga dammoo ayn bi mu jox la ubayda ñaareel bi da nga fata ayn bi mu jox la abida kon niñ koy bindee ñoo niroo waaye niñ koy maasee ñoo wuute boobaa prononciation bi wuute dafay am ci xadis léeg leen mën ngaa ñëw gis xadis bu ñu maasul ci saxiwul Buxaari wala ci Google wala ci nàngam doo xam naka la ñuy diiree moo tax benn dégg naa fi <clears throat> dégg naa fi benn waaye bu naan Yaxya ibnu Muin xam nga Yaxya ibnu Muin nii lañ koy bindee Yaxya excusez un peu on écrit comme ça Yaxya nii léegi problème bi mooy buñ la maasalu mim bi te yow feroo igi ci wàllu xadis doo xam ndax mim bi dañ ko war a fataa wala dañ ko war a kasra wala dañ ko war a damm man ma dégg mu jàpp Yaxya ibnu Muin nee na Yaxya ibnu Muin nee na da ngay ree bay bëgg a dee alors que kenn du wax Yaxya ibnu Muin Yaxya ibnu Main la ñuy wax bi fatxil miim am na sax ku ma mës a dégg moom mu ne Yaxya ibnu Muin ma ne ko d'accord foofu la la yàlla doon xaare donc mu tëlëf ñaareelu loolu mooy premier kii bi ñaareelu kii bi ñaareelu catégorie bi am mooy muxtalaful xat muxtalaful ijaam maanaam ñoo niroo ni ñu leen di bindee complètement mais li leen wutale mooy tomb yi ci am bi yoon duwul masque bi mais tomb yi moo leen di wutale exemple ñu ne la siraaj ak saraax lan moo utale siraaj ak saraax mooy tomb bii ñu def ci jiim bi gis nga jiim bii nii buñ ko tombul woon mën naa nekk saraax au lieu de siraaj naka noonu ñu ne la exemple xisaam ak xaraam lan moo leen wutale mooy tomb gi ñu topp tomb gi ñu tomb zaayun zaay bii moom moo leen wutale complètement donc léeg-léeg euh, xadis mën na ñëw tasxiif yu mel nii am ci nga ñëw jàng ci isnaad bi xaddasana saraj qaala xaddasana xisaam fekk xaddasana xaraam la ainsi de suite naka noonu ñetteel exemple yazid ak burayda gis nga yazid ak burayda ñu leen di bindee ñoo wuute ñoo ñoo ñoo niroo maanaam bu ñu leen maasul boo defee nii def nii nga defaat nii def nii boo leen maasul ñoo niroo léegi fii boo ñëwee def fi ñaari tomb dafay nekk yaa fii nga ñëw def fi benn tomb mu nekk baa fii nga ñëw def fi benn tomb mu nekk zaay fii defoo fi tomb mu nekk raa fii nga def fi ñaari tomb fii nga def fi ñaari tomb nga mën koo liir bii nga liiree ko Yazid bii nga liiree ko Burayda d'accord euh, bon motax alcorane suñ ko masul won tay ji di lek bidaa la ci jamono amul won ci jamono yonent alcorane bi nekkon jamono yonent masuñ ko woon waaye alhamdulilah biñ masé tay ndax sino sinon si siise yu bëri duñ ko mën lire ça mom c'est clair voilà donc mu ne la fal awalu bi al maftuha awwaluhu wa bi zaayi المكسورة والثاني بالموحدة أوله أوله وبراء al maftuha maanaam bu ñu waxee taxtiyatil maftuha taxtiya mooy yaa nga def ñaari tomb ci suufu xaraka bi bu ñu waxee bil mu waxada mooy baa bi benn tomb da koy gis lu bari ci téere ci téere jarh wa taadil ak kutubu rijaal yi téere dabta yi surtout donc loolu mooy troisième catégorie bi quatrième bi wala beneen exemple ba léegi ñu ne la bazar ak bazaz xam nga ni ñuy bindee bazar ak bazaz ñoo niroo li leen wutale mooy tomb bi am ci zaayun bu mujj bi alors que fii amul mu daal di nekk ra bazaz bazar par exemple ñu ne al awal axiruhu raun wa saani axiruhu zaayun bu njëkk bi ra moo ci mujj ñaareel bi zaayun moo ci mujj c'est ça la différence alors <coughs> on continue exemple euh, wala quatrième catégorie mooy mu'talaful xat muxtalif fi baadi xuruuf fi baadi xuruuf al mutaqaariba fi rasm maanaam catégorie boo xamante ne ba léegi dañoo dëppoo ni ñu leen di bindee niroo ni ñu leen di bindee waaye benn ci yenn xaraf yi ci am dañoo dañoo wuute te dañoo jege trop waaye dañoo wuute exemple ñu ne la euh, ñu ne la Zubayr ak Zubayd ak Zubayb xam nga ra ak pratiquement ñoo bindee xacc bi rek exemple boo defee nii euh, def nii am kuy ñëw def def donc c'est pratiquement la même chose fii boo xëccoon d'accord donc ils sont très très très semblables euh, raay ak dal surtout bu fekkee ku xaw ñaaw bind la comme man naka noonu boo defee nii def donc bu fekkee ku xaw a ñaaw bind la bu ko yéegalee tuuti rek mu soppaliku baa donc dafay nekk Zubayb vous voyez une toute petite erreur mën na changer masque xaraka bi mu nekk leneen pas xaraka mais xaraf bi mu nekk leneen y a une différence entre xaraka ak xaraf moo tax je me suis rectifié donc buñ ne la Zubayr aaxiruhu raaun buñ ne la Zubayd aaxiruhu daalun buñ ne la Zubayb aaxiruhu baaun moo tax mu ne la al awal axiruhu raaun wa saani axiruhu daalun wa saalis axiruhu baaun léeg-léeg tamit yu mel noonu mën na am dañoo dëppoo niñ leen di bindee waaye wuute ci yenn ci xaraf yi nga xamante ne ñoo ci nekk wuute bu xaw a jege trop raa ak daal ak baa bu jumte bu ndaw bu amee rek mën na nekk tasxiif ci kii bi ci bind bi alors euh, muttafiq wala muftariq moom tamit beneen beneen euh, démembrement la ci chapitre bi ba léegi huwa mooy définition mattafaqa asma euh, mattafaqa asma ruwaati xattan wa lafzan waftariqat musammayaatuhu mooy turu raawi yoo xamante ne nii dañu dëppoo ci niñ koy bindee ak ci niñ koy prononcé waaye nag ñu wuute ñi nga xamante ne ñoom lañ koy kii ñoom lañ koy askane maanaam هم رواة الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فساعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر وذلك إذا اتفق اثنان فساعدا في الكنية والنسبة ونحوهما je m'explique موي راوي يو xamante دانيو دبو dañoo dëppoo ci seeni tur ak seen turu papa xëy na sax ba li ko wala ñu dëppoo ci seeni tur ak seen dàkkantal xëy na ak seen turu ak seen dàkkantalu papa fànn bu complex la am na benn débat bu moom sa def ak benn mbokk ci jamono 2016 xaw ma 2017 mbokk mi ci waa kii la bokk bo bokkul ci suñu doom bàjjani ci suñu doomu nijaay la bokk ñu doon waxtaan ci benn xadis bu Balaazuri indi ci téereem حديث بي موي آه، لا يطلع انا عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي الوغ تي بير حديث بوبو دا فا ام بن واي بو تي نيك بو تودو اسحاق اسحاق اسحاق مومو دا فا جيلي تي كوني واخ عبد الرزاق موم il voulait faire comprendre que Ishaq bi Ishaq ibn Ibrahim ad-Dabari la man je défendais la position selon laquelle Ishaq bi Ishaq ibn Abi Israël la donc c'était un problème très très très léger pour moi. mais moi, je savais que maîtriser le fan, j'ai vraiment voilà parce que première catégorie c'est la asmaa uhum c'est une ñoo dëppoo fi muy gën a jëfee mooy bu fekkee seen tur yi ñoo dëppoo trou papa yi dëppoo de turu peau de très compliqué mais c'est réglable quand même et c'est gérable Vous faites qui def qui, fait la limite. exemple nous, sommes amru bnu yaxya ibnu salama dafa am ay raawi te lii yaakaar naa joxe naa ko exemple benn jour benn xadis bu siiw bu nekk ci musnad bazar nga xam ne suñ doom bàjjen dañu koy tooñee léeg-léeg naan téye kurus daganul dajaloo di zikar daganul parce que Abdullah ibn Mas'ud fekk na ay nit ñu toog di zikar mu tasaarale leen ne leen compté leen seen seen ñaawte bi xadis boobu bon permettez ma xool ma ma ma xool xadis bi ñu xool isnaad bi <coughs> après ma wan leen euh, li ci Albani def c'est un exemple fànn bii nii ñuy jàng nii moom moo koy lijjanti fànn bii ñuy jàng moo koy lijjanti boo delloo ci musnad Bazzar fardu sayyi'atikum Darimi, Darimi, là, qui est Sunan Darimi, pas Sunan Bazar. Je m'excuse. Sunan Darimi. فلما خرج قلنا إليهم جميعا voilà boo delloo ci sunan daarimi hadith bi mooy hadith numéro 210 darimi daarimi mu ne axbarana alxakam ibnu mubarak anbaana amr ibn yahya qaala samitu abi yuxaddisu an abihi xaaral ma xaaral ma wan leen ko ñu ut ko ci google ñu ça va nous permettre de vous allez mieux comprendre yéen a ngi gis écran bi na am ku bind ci chat bi s'il vous plaît. waaw ñu ngi gis ñu ngi gis. d' accord jërëjëf ñun suñu daarimi voilà ci suñu daarimi la nekk xadis numéro 210 moo nekk nii bon ça nous a dirigé sur la page de quelqu'un sur. Oui, mais même qu'on le fait, on est vraiment حدثنا ولا أخبرنا الحكم ابن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى جابوا لنا تربي عمرو بن يحيى به قال سمعت أبي دونك دفع ديجي تبايا jàngoon nañ différence سمعنا ak xad euh, sami'tu ak xad xaddasani sami'tu abi donc sama an la wax yu xaddisu an abihi donc قال كنا جلوس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قلنا لا بعد فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا قال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا بحديث بجي حديث بخوة قدولا ألو لما تجيب لموي نوتي سنو لا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى مي بايم لديجي حديث بي بايم موي كان موي عمرو عمرو بن يحيى ابن عمرو كوكو ديجي كوتي ماما ماما موي كان موي سلامته léegi fi problème bi nekk mooy Albani bi mu ñëwee pour wéral xadis bi dafa changé Amru bnu Yaxya bi ak beneen Amru bnu Yaxya boo xamante ne moom siqa la alors que Amru bnu Yaxya bii nekk ci chaîne de transmission bi moom du siqa xadis bi mu nekk xadis bi wérul mais Albani pour wéral xadis bi mu def maguy boobu alors comment on sait am nga benn raaw yi boo xamante ne turam ak turu baayam ak turu maamam dafa niroog beneen raaw yi même tur même turu baay même turu maam kii amru ibnu yaxya ibnu amru ibnu salama kii amru ibnu yaxya ibnu amru ibnu salama lan moo leen di wutale bu boobaa bon je vais couper Facebook pour que ñi ñu am privilège bi allez à ce soir incha allah tey ci ngoon danañ def su live ñu continuer Israël Palestine bi merci